ay sénégalais ñoo koy am comme chiffre d'affaires waa ñooñu nga ne leen dégage fu ñu dégage jëm ba noppi Sonatel boobu ci njiitu Cheikh Tidiane Mbaye ñoo dem sanc Mali sanc Guinée yóbbu fa ay sénégalais yu koy jiite Sierra Leone Sierra d'Ivoire mais fu ne te loolu ci xarañteem la ko defee ah mm-hmm. puisque Orange moom buggul woon turam ñu mele ci affaire u Sonatel mm-hmm. parce que wóorul te bu un problème bourse bi day non non avant nga may il faut ngeen téré ay Guy ki xawma yu bêtises micro enfin micro Idrissa Seck bi nga la tontu nga France Dégage exemple donc le jël Sonatel lu toll ci personnes ñi ngi fay liggéey amul benn tubab ay sénégalais kese ñom ñoo fay liggéey dividende yi Sonatel di mi ngi jëm ci Sénégal 27% yi nga xamanteni mi ngi jëm ci Sénégal ba ci yi ñuy jënd mi Sénégal kon politique ñi ngi jeunesse bi A xamuñu ci B te balaa may dee ñu panafricanisme ñu dañuy xeex internationaux yi dañuy xeex notel dañuy xeex tubaab yi jël référence ci Thomas Sankara te saa yu ñu jàqee dem ci tubaab yi walla woote opinion internationale dinaan trouver nangam xool leen nangam tey est-ce que tey sénégalais yi xalaatoon nañu ci phénomène politique boobu am njàqare am problème dem di jëli un avocat français muy première gàcce boo xamante ni ay militant am ñu ngi si teg seen bët dem ànd ceeg moom maanaam nee naa leen ñenn ci ñu àndal ay naxa naxa lañu. ay dof lañu amuñu xel ni boy bobu am 20 ans légui di waxé xamuñu lu géej gi diiri ba nopi ñi bàyyi avocat bobu yëpp institution Sénégal di manque respect institution du Sénégal ba paré ñom ñuy and ak mom ba nopi ngeen né yeen ay patriote ngeen muy Juan Branco je crois que l'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités face à cet avocat de rien du tout un présumé violeur ko xamanteni ni dëkk bu mu nekk tekki fa Ali Kassira ay tay nit topp ci ginnaaw benn leader ñaan dañuy jàppale kooku pour mu yàpp Sénégal franchement parler dama ne dama am gàcc ci ñi nga xamante ne dañuy woote seen bopp patriote l'état du Sénégal nag il est temps qu'il porte plainte à cet avocat de Juan Branco ba nga xamante ni la muy wax ak la muy ubbi làmmiñam xamu ci a ni kasira ci procès Mame Mbaye Niang lañ ko woowee kon fekkewul procès Adji Sarr ak la ca xew ak la ca ñàkk xew jotul teg tànkam Sénégal bay xam dossier ba la ci nek wala la ci nekul buzz médiatique nak lay wut nako wuti je fenen lenn mom xam nako buzz bu yalla dogalé samay ñenti beut ak ñenti bëtu Juan Branco dajé mo xam Europe la mo xam fu mu mënti dina dégg quatre vérités Juan Branco moi ton je je te dis une fois que nos quatre yeux se croisent en France ce jour-là tu vas respecter le Sénégal de bon ou je vais te dire que tu es tu n'es rien du tout qu'un présumé violeur, qu'un avocat corrompu, qu'un avocat malhonnête, irrespectueux, dont la France, le Portugal, l'Espagne, où tu totalises ces trois nationalités, ne te respectent pas. Je veux que tu respectes le Sénégal. Le Sénégal est dix mille fois mieux que toi. Le plus mauvais des Sénégalais est dix mille fois mieux que toi. Je veux que tu sors de ta langue de notre cher Sénégal ça c'est un message que je te lançais à toi Juan Branco kon Yakarna naa ni tey état du Sénégal ñoo avons a que jël seen ay responsabilités ci kii nga xamante ni Juan Branco ñii nga xamante ni ñoo topp phénomène politique boobu nekk ci Pastef ñoom it ñi ànd ak moom yéen ngeen taxaw ngeen ne patriote ngeen c' est ça patriotisme je crois que su ngeen di seetaan lii war ngeen am gàcce seen bopp su ngeen tegee vidéo yi nga xamante ne kii ngeen topp ngeen topp war ngeen am gàcc si seen bopp war ngeen rus si seen bopp yéen ñi fi taxawoon di tuumaal Adji saar muy sénégalaise Adji Sarr du seen doom du seen rakk Adji Sarr tey su dëkkoon doomu Mimi Touré mbaa doomu Aïda Mbodj mbaa doomu euh, Khadija Mahécor mbaa doomu may Maimouna buso tey du ngeen taxawee nii mbaa mu nekk seen rakk mbaa mu nekk doomu Malick Gakou mbaa doomu Habib si mbaa doomu Cheikh Tidiane Dieye du ngeen taxawee nii du ngeen gore Sitor Ndour pouvoir la bokk APR la bokk jànqam jiiñ na ko tewut yoon da ko teg loxo mu tëdd ci kaso bi juróom benn weer ba ñu atte ko agite ko et pourtant gis leen benn waa APR jóg gis leen violence kon je crois que la violence qui est en train de régner dans notre pays yéen a koy indi ndaxte kaddu Guy Marius Sagna yii mu yëkkati te Idrissa Seck tontu ko xam ngeen ni ko kooku dafay wax rek pour wax waaye xamuñu dara ci la ñuy wax donc je crois que dafa jot sénégalais yeewu xam na ne que lii ñuy woote seen intérêt la bëgg ay doomu aadama faatu ci te ñoom seen mbokk du ci dee kenn du ci dee yóbbu le pays dans le chaos tey nag les forces de défense et de sécurité, ils sont là pour gérer la sécurité de tous les Sénégalais.